ma ci lu ëpp euh, cinq milliards teewul nag euh, sunu euh, yitte yëpp mooy ànd ak ñi war a def liggéey bi liggéey ko ñu ngi ci def sunu kemtalay kàttan te yaakaar nañ ne dina sotti bu neexee yàlla mu nekk tamit occasion pour man pour ma sensibiliser population bi waxaat jeunes yi ne projet bi seen projet la projet bi liñ ci coono yiñ ci def yëpp ci président ba ci ouvrier yi euh, objectif bi yëpp mooy jox sénégalais yi li ñu méritoo li ñu méritoo mooy li gën ci àdduna bi moo tax yàq waru cee am ndax li ñuy defar yëpp pour euh, Sénégal la nañ ko def seen moomeel euh, sàmm ko ndax liggéey bi yëpp mooy pour yokk koom-koom wàññi tooke yi nga xam ne mi ngi am ci ci gu yaram nit yi ak àllam bi fexe tamit ba Sénégal jëm e, kanam